salaamaaleykum sama gars yi euh, j'espère que yéen a ci jàmm tey nag dañuy gis euh, nu ñuy defee li ñuy wooyee vectorisation vectorisation ci ay image euh, dinañ wax ci mbirum vectorisation dinañ xool itam nu ñuy vectoriser ay image image ci mel ni ay image en couleur wala ay image en noir et blanc dinañ gis itam nu ñuy vectoriser ab photo Euh, dinañ gis itam nu ñuy vectoriser logo bu ànd ak couleur euh, nañu daje ci euh, sama machine ci logiciel bi di Illustrator ñu mën a tàmbali bu leen fàttee abonné bu leen fàtte jàppale sama chaîne bi bés loxo bu bleu beeg bi ñu daje sama machine ba ci kanam. léegi li ngeen war a jéem a xam mooy maanaam. luy vectorisation vectorisation nag boo ko bëggee xam euh, ci man li ma jàpp ci man ci sama expérience li ma xam euh, mooy que ni mooy maanaam jël benn image boo xam ne image euh, bitmap maanaam image bu am ay pixel lu ci mel ni ay photo yooyu nga convertir ko en image vectorielle maanaam nga convertir ko en dessin Euh, boo xam ne dessin électronique la euh, lu ci mel ni euh, maanaam ay dessin boo xoolee fii nii ci image bi ma fii image bi dafa composé de pixels gisoo ni mu mel ne ni lu toj boo seetloo moo ko gën a leer boo xoolee bii moo am ay pixels maanaam ay point beneen bi mooy dessin bi mooy dessin bi li nga war a jàpp mooy que ni image beneen mën nañ ko agrandir à l'infini bi mënuñu def loolu parce que dafa am ay pixel léegi booy yokk ba benn niveau da ngay commencer gis ni image bi day toj li ngeen war a xam que mooy avantage bi mooy que ni bee moo ñu gën a may ñu mën koo yokk ba mu nganda nganda te duñ ci am benn perte loolu mooy seen différence entre image boo xam ne dafa am pixel ak image boo xam ne dessin la vectoriel la <coughs> léegi vectorisation li ngeen war a jàpp mooy que ni da ngeen di jëlee image boo xam ne dafa am pixel ngeen def ko un dessin léegi dañuy supprimer fichier bi ñu dem fichier importer ñu importer logo wu YouTube bu ñuul bi. buñ ko importer ñu xaw ko ngandal tuuti boo seetloo ci Illustrator mën nga euh, def say aperçu maanaam pour xool ndax am nga ay tracé boo ko bëggee def euh, da ngay dem si euh, affichage nga xool foofu di nga gis tracé nga bës si léegi boo seetloo ñun amuñu benn tracé dañoo am benn forme boo xam ne dafa carré mooy taayu image bi ak benn x bu nekk ci digg bi donc x boobu <clears throat> boo seetloo mooy symboliser image ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci logicielu PAO yi seetlu nañ ko souvent da ngay gis que ni lu ñuy représenter image benn carré la bu am benn x ci diggante bi mooy symboliser image souvent léegi fii amuñu tracé léegi suñu bëggee dellusi dañuy dem ci affichage dem aperçu GPU gis nga dellu si nañ ci image bi ñu amoon léegi image bi boo seetloo buñ ko bëggee vectoriser li ñuy def mooy maanaam dañuy dem fenêtre muñ demee ba fenêtre di ngeen gis benn euh, panneau bu tudd vectorisation de l'image bu fekkee ni coché goo ko danga koy coché boo ko coché day feeñ a droite bu ñu neexee ñu jël ko ñu vectoriser ko ci kaw mais am nañ beneen option mooy maanaam ci kaw après juste barre de menus bi di nga seetlu foofu am nañ fa vectorisation de l'image dañ ci bës buñ ci bësee da ngay gis ni que day vectoriser image bi bu ñu defee euh, affichage tracé gis nga dinga nga am tracé bi waaye tracé bi du feeñagum il faut nga bës décomposer boo décomposé ba pare di nga gis ni tracé bi ñëw na léegi trace bi bu ñëwee dañuy dellu au lieu ñuy demaat affichage tracé wala GPU dañuy bës contrôle Y mu ñëw gis nga image bi vectorisé nañ ko léegi li ngeen di xam que ni mooy que ni bu ñu amee vectorisation day vectoriser contour image bi maanaam image bi ni mu toll da koy vectoriser gis nga léegi lii nag maanaam foog nga génne lu weex li <coughs> excusez-moi <coughs> léegi pour séparer image bi dañuy dem ci objet ñu dissocier boo ko dissocier mooy séparer nga lu weex li ak lu ñuul li nga déplacer ko nga supprimer ko wala bu la neexee sélectionner ko rek supprimer ko gis nga tracé bi mu ngi nii. léegi tracé bi mën nañ ko agrandir nu mu ñu neexee bu ñu neexee yokkoo ko ba fu mu ñu neex te du am perte loolooy avantage yu image vectorielle yi léegi dañuy jàll ci euh, beneen euh, xeetu image dañuy wut image en couleur fichier importé <coughs> ñu jël logo wu Firefox bi buñ ko jëlee <coughs> dañ koy importer buñ ko importer nag ba noppi dañuy dem ci vectoriser ñu cliqué waat ci kaw mais fii dañuy am problème parce que vectorisation bi ce qui va se passer day dem en par défaut en noir lay ñëw donc dañuy def contrôle Z suñuy dem ci flèche bu ndaw bee ñu bind ñu cliquer par exemple six couleurs donc da koy jéem a vectoriser en six couleurs gis nga mais boo seetloo baaxul parce que da koy jéem a convertir en six couleurs donc da ngay defaat contrôle Z dellu demaat euh, ci vectorisation photo haute fidélité donc boo demee haute fidélité di nga gis dina ko vectoriser mais vectorisation wu photo boo xam ne maanaam dafa am ay dégradé dafa xaw a compliqué gis nga bu ko defee sax da ngay am ay perte da ngay am beaucoup beaucoup de perte gis nga problème yi ñu am du net quoi donc du loo xam ne man dama leen koy conseiller li ma leen di conseiller ci yu mel nii ngeen retracer logo bi wala ngeen dem télécharger logo bi moo gën euh, moo gën je pense bien donc lii li ñuy def mooy duñ ko utiliser ti dañ koy supprimer ñu jéem a xool beneen cas de figure dañuy dem fichier importer. ñu jël euh, photo wu euh, sëñ Babacar si waaw sëñ Babacar si sama turandoo waaw moom la ñuy jël bu ñu jëlee image am dañuy jëm ñu jëm ko vectoriser Sénégal nag gars yi am nañ tendance di utiliser ay photo marabu pour def ko ci ay t-shirt donc dañuy jël euh, exemple bi pour ma won leen noo leen koy defee da ngay sélectionner photo bi boo sélectionner photo bi nga vectoriser donc boo vectoriser gis nga lii lay joxe donc lii nag problème bi nga am mooy maanaam dafa baaxul parce que lii mënoo cee liggéey mënoo cee mun boo jëlee lii bëgg ko def ci plotter plotter bi day dof parce que dafa bëri point plotter bi par point lay lay lay lay lay kii quoi donc tey bëri lu muy lu muy lu muy liggéey donc dans ce cas de figure li ñu di conseiller mooy maanaam euh, da ngeen di jël euh, option option avancée wu vectorisation bi mooy bi nekk ci panneau bi moo ëpp option léegi fii nag li ngeen di def mooy maanaam da ngay vectoriser en noir et bu ñu vectoriser en noir ba noppi léegi dañuy liggéey ci sëy yi seuil yi ñoo ñuy permettre ñu wàññi ombre yeeg yokk lumière bu ñu neexee gis nga. donc affaire bi day gën a leer donc yooyu yéenay xool noo leen koy defee ba am li ngeen bëgg waaw parce que sëy bi moo lay permettre nga yokk ombre bi walla nga wàññi ko boo amee résultat bi nga bëgg nag li ma leen di conseiller mooy maanaam ngeen reprendre dessin bi reprendre dessin bi avec l'outil plume boo leen ko reprendre avec l'outil plume euh, bu ko defee di ngeen am moins de points di ngeen mën a jàppale ploteur bi lii nag laa leen àndi loon pour tey Euh, yaakaar naa ni xam ngeen nu ñuy defee vectorisation ci ay image euh, gis ngeen euh, possibilité yiñ ci am gis ngeen li ñuy def maanaam ci option avancée bi ci vectorisation bi boo leen ko gisul da ngeen di dem fenêtre ngeen dem vectorisation de l'image wala ngeen dem directement ci kaw juste après la barre de menu mooy bar bi ci topp barre d'état bi di ngeen gis foofu vectoriser l'image vous avez plusieurs options option yu bëri mën ngeen xool option bu leen neex boo leen gisee ni que image bi ngeen vectoriser baaxul euh, contours yi maanaam netul bëri na ay creux creux maanaam euh, kiiyul liisul li ma leen di conseiller mooy maanaam na ngeen reprendre dessin bi bu leen tayal reprendre leen dessin bi de façon manuelle ak euh, l'outil plume Euh, vectorisation bi euh, li ma leen ci conseiller mooy maanaam peut-être mën na leen dépanner ci ay images yoo xam ne en noir et la yu ci mel ni image wu logo wu YouTube bi ñu gisoon sànq wala ay icônes yoo xam ne di ko def ci ay téléphone ay email ak yooyu waaye mais bu leen ci abuser lii laan indiloon pour tey bu leen fàtte abonné bu leen fàtte jàppale sama chaîne bi bu leen ma fàtte euh, tagge Eh, commenter ñu def noonu ba beneen yoon.